docteur Seydina Oumar Seye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay madame. alors sa xel ci lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu gis ne situation économique euh, bu Sénégal fi mu toll nii dafa xaw a sooxe ndaxte FMI euh, jot naa fësal ab benn tableau boo xamante ne dafa ñuul kukk euh, jëm rek ci prévision goo xamante ne wàllum croissance PIB bi jugee ci sept virgule un ba six pour cent nan nga jàngatee situation boobu waa waaw benn situation la boo xamante ne ni ñu koy jàngee pour moi il faudra pas s'alarmer plus que que adduna bépp moo nekk di dund li économie si tudd contraction wala repli économique xam nga tey jii les prévisions de l'économie yi nga xamante ni moom la waa FMI nekk def ci fan yi ñu génn mooy mooy mooy semi cinq à douze bi dañu wane rek tout simplement que xayma yi ñu tënkoon suñu économie Sénégal ki yokk ñi li ñuy wax la richesse la croissance doon na dem ci ay sept et waaye gis nañ ni kat bari na ay goulot d'étranglement bari na ay déqatal yoo xamante ni tey jii wala ay pratiques yu ñuy def de telle sorte que narootunoo am loolu mooy croissance bi day wàññeeku dañuy dem ci siis or loolu bu wàññeekoo mooy wane ni am na ay problème mooy wane ni liggéeyukaay yi demeetul mooy wane ni dina am ay destruction d'emploi entre autres waaye tableau boobu tey jii il faut nga comprendre ci adduna bi ni muy demee ak les perturbations des chaînes logistiques conflits yi am fépp ci adduna répercussions yooyu moo def de telle sorte que bu doon Sénégal kase la ñu ne ah Sénégal day waaw lii de tey moom nan la war a demee wala ñi yoroon certes naam am nañ ci responsable dinaa ci ñëwaat waaye àdduna bépp moom moo subir li nga xamante ni moom la ñuy wax repli de croissance mais du ab situation boo xamante comme ni ko journaliste yi waxee donc loolu il faudra bien ñu corriger nii situation bi nga xamante ni tey jii les finance publiques nekk c'est pas une situation intenable lu ñu mën a gérer la lu ñu mën a dékkandiku la lu ñu mën a jubbanti romb ko dem la waaye encore une fois il faut que jii bu ñuy situer responsable yi ñu bari dañuy mel ni comme si les nouvelles autorités yi ñëw ñoom ñoo teg situation boobu dañ ko hérité donc nekkuñu ci dimension kan la wala ñan la donc fi ñu nekk nii mooy loolu nuñ koy rombee ba croissance yi nga xamante ni moom la ñuy wax tey dugg gi marché mën a gis ni dëkk bi am na yokkute mooy li ñuy wax koom loolu tey jii ci loolu la ñu war a nekk situation bi àdduna bi dund moom moo def de telle sorte que njëg yi yokk dëkk yi metti même foo war a mën a jëlee xaalis incertitude bi daw ci àdduna ñii ragal a génn seeni i koom yëpp ndax xamuñu fu mu jëm ak geer yee yenn conflit yi loolu moom moo waral économie yëpp lay laal lawatina suñu économie diggu dóomu yi nga xamante ne ñun la ñuy tuddee Afrique subsaharienne. Mm-hmm. mais encore une fois ab situation la boo xamante ni FMI toujours bu defee jàngetam danaan la ah lii ak lii ak doxalin yii may gis wala neew ak nee bu continuer nii de. seen lee ngeen doon yaakaar set dana nërmeelu ba tel tel te loolu baaxul ci réew donc je pense bien que lépp loolu ñuy artu autorité yii ñu gis à savoir ministère de l'économie ak finance war nañu def orientation yi changer cap bi de telle sorte que mën nañu retrouver croissance boobu ñuy wax nga xamante ni tableau bi ñuy wax dañ ko peindre en noir je pense très bien que c'est possible mu delluwaat tableau bu weex. en tout cas wax nga ko sànq mooy ni autorité yu bees yi dañ ko fay fekk lii nga xamante ne daanaka mooy situation économique bi am jamono ji FMI tamit li ñu jot a fësal waaye euh, lan moo war a nekk vraiment rôle euh, ministre de l'économie. waaw taxaw temb la ñu sentir le ministère de l'économie. mooy tey jii ci nga xamante ni mooy orientation yi ci nga xamante ni mooy attitude bi ci nga xamante ni fépp foo xamante ni ay niche de croissance la wala d'activité yoo xamante ni génératrice la de revenu wala création de richesse ñu dem ci loolu mooy la diversification de l'économie dugg ci primaire bi booster tout ce qui est l'industrie les BTP entre autres donc loolu war nañu gën a sentir l'économie mais man ko doon wax man dama sentir Sénégal yàgg na noo xool ni à des fin d'efficacité wala jommal euh, ñoŋa tuuti bu ñu séparé ki yor finance ak ki yor économie mooy gën mais seetlu naa su ñu ko defee lan ci doon séntu léegi moo koy tane maanaam ñu boole l'économie et des finances maanaam économie ñëpp ñi nga xam ne ñooy saytu orientation activité ak lépp mais parce que le nerf de la guerre mooy xaalis mooy finance man je pense très bien que tey jii. ministère de l'économie et des finance du lu ñu war a séparé lu ñu war a boole la kenn yor ko nga xamante ni gaawaay bi bépp xayma bépp xalaat wala mesure bu ñu war a jël rek xaalis bi day accompagner ànd ak moom nga xamante ni dina am célérité dina am accompagnement boo gisee ñenn ñi di sentir ñu ministre de l'économie parce que tout finance daf koy def moi je pense bien il est plus stratégique il est plus optimal ñu boole l'entité ministère de l'économie des finances et du yeneen entité yi ñoom ñëpp ñu dugal leen ñoom commerce petite moyenne étude ñooñu bokk mais bii je pense bien que économie ak finance dañoo war di ànd ndax suñu dëkk yi contrairement ak yoo xoolee yenn pays occidentaux yi boo bëggee séparer finance ak économie rek c'est pas du tout stratégique mais toujours est que moi je pense bien que les nouvelles autorités vont maintenir le cap Et d'ici après les prochaines législatives il serait plus intéressant de regrouper le ministère de l'économie et des finances. alors ñu gis ne am na benn faiblesse ci marge liquidité bi waaye tamit euh, mu mel ni euh, saa su ne dañuy def recours jëm ci emprunt commerciaux yi loolu ana lan moo ko waral. waaw parce que xam nga économie tey jii képp ku yor euh, réew dafa mel ni ab boroom kër. mënuñoo xaar ni bon nañ bàyyi ba semaine prochaine ñu door a añ wala ñu door a ndékki foog ñu lijjanti ko ñu fay donc noonu lay fonctionner tey économie yu doole yi ëpp croissance yi ëpp prospérité ñoom ñooy économie yi dàq leb ci àdduna donc leb du loo xamante ni ñun ni ñu nga xamante ne ni ñu ciy fantasme mais ab élément bu bon la c'est-à-dire que ni ñuy lebee mais xaalis bi bu mu ci jotee bu fekkee dugg na fa mu dugg bu fekkee amul détournement de deniers publique day feeñ ci askan wi waaye je pense bien que transparence ak lutte contre la corruption bi ñu wootee ci assainissement des finances publiques loolu buñ ko jëmbalee di nga gis ni dina am njëriñ bu am solo ci question bi nga ma njëkk a laaj mooy li FMI di ragal suñu taux de croissance di wàcc di dem ba ay 6 pour cent wala li nga xamante ne doon nañ xalaat ni tey jii dina pro-pauvre ñu génn ci ndóol dem pays bu émergent parce que mauvaise pratique yi moom moo koy def. Mm-hmm. dañuy teg système yoo xamante ne tey jii bu ñu amee ay financement ay milliards yi milliare du dem ca fa mu war a dem yu ci bari day am ñu koy capter de telle sorte que loolu économie di ko gis xaalis dina dugg waaye du feeñ ci activité économique ay poste yoo xamante ni lii ay wareefu nguur la ay wareefu état la bu ko waree def mu xool keesam mu xool li mu war a jëlee ci réew mi muy fiscalité ak ay ressources am gis li matewu ko léegi day dem bitim réew abbi ji ko su amee fay waaye maam maa ngi fàttali ni Sénégal tey jii waruñoo ragal yenn niveau d' endettement yi li ñuy ragal kay mooy endettement bu ñu mën ci nekk dugg ci ay investissement yoo xamante ni c' est prioritaire na nekk ci ay investissement yoo xamante ni c' est yoo xamante ni tey jii dina jur koom boo xamante ni suba dina générer kas fulawu ay njariñ yoo xamante ni dinañu mën a fayal bor yooyu pour les générations futures parce que dëkk tamit mënul toog doo investir doo développer l'activité bi parce que soo investir da ngay absorber de la main d'œuvre di permettre la croissance di nga permettre activité économique reculé bii ñu am dootul amati. Hmm. parce que li ko waraloon mooy incertitude bi nga xamante ni tey jii moo amoon bi ñuy doon jëmbal élection yu bari. économie dafa tàggatémbe woon presque dafa paanoon ki waroon a indi indeetul ñi yoroon xaalis naj parce que xamuñu suba nu muy demee hmm. situation boobu nag moo nekk fépp ci adduna ak guerre yeeg yi ngay gis de telle sorte que même xaalis yi ñuy wax def boo bëggee leb ci nu ñu ko tënke ñun ci suñu su région bi fii mooy norme communautaire yi dañuy jafe léegi nag il faut que dem recours emprunt yi ngay wax ñu naan coûteux mais il faudra relativiser à travers eurobond bi ñuy wax moi je pense très bien bi ci ECTA doon laaj bi muy door a jot alors li nar a des nag ci atum deux mille vingt quatre nee nañ perspective macroéconomique yi dafa nar a jafe loolu ana nan nga ko gisee. waaw dafa nar a jafe ça veut pas dire que day jafe donc mooy pexe yi nga doon laaj tamit ci économie bi ni muy taxawee muy ministère de l'économie et des finances les autorités orientation yi ñu war a jël cap yi ñu def yi ñu war a def de telle ko que loolu ñuy xalaat ne tey jii dinañu dab ci ay jafe-jafe ñu fexe ba fànk ko parce ay prédiction du ay prophétie du ñëwee lii ñu wax rek force dana am parce que boo ko xaymaa rek ci leer na même ñooñu tey jii muy FMI dañoo tënkoo ni xayma ni économie Sénégal la doon na dem ba sept pour cent ñu ñëwaat ba ci biir gis ni doxalin bi baaxul mu siis donc lu ko yóbbu siis bu doxalin bi baaxaatee mën na ko yóbbu set donc perspective yi mois j'ai l'espoir que am nan ay perspectives yoo xamante ni ay perspectives positives la versus crainte économie et ce sont des craintes légitimes donc bu économie euh, FMI defee ay observation duñ ko jël négativement non FMI lii wala tel day artu léegi loolu muy artu état bu am intelligence et je pense très bien que boo xoolee ci euh, mooy réponse wu autorité étatique yi avec humilité intelligence bàyyi nañ xel ci soñ yi ñee di yi ñu fexe ba tey jii contrainte yooyu wala tënk-tënk yooyu ñu fexe ba taxarti ko pour mu nekk ay économie yu law téq ñëpp donc loolu nga ciy jàngate li économie wax muy tableau sombre bi muy perspective yi nga xamante ne ni àdduna jafe muy guerre yi ngay gis muy ñëpp ñi yor xaalis ci àdduna dañuy ragal parce que ñuy xalaat ah bu benn conflit duggee mondial yàlla nañ ci yàlla musal nan la àddunay demee la nga leble woon ndax diñ ci jot donc loolu il faut nga am intelligence xool fan ngay jëlee xaalis sur soi-même mooy l'approche endogène bi nga xamante ni moom mooy nouvelle esprit euh, référentiel économique du Sénégal actuellement. li ñuy wax nag ne déficit budgétaire bi euh, dina doubler ndax loolu am na. non non non non non je ne pense pas mais même si même si parce que xam nga parfois dañ naan non le déficit budgétaire mooy dina doubler mooy bu ñu subvention yi ñu toppee nii ñuy dundee wala yenn yi nga xamante ni yàqu-yàqu yi ñu gis wala mauvaise pratique yi. mën na dem ba doubler ce déficit budgétaire or bu ko doubler lépp loo am ci xaalis daanaka du la jariñ da nga koy faye donc loolu la w war a fexe de telle sorte ñu inverser boobu. kenn du ni dañuy dem foofu waaye man na nekk ñu bañ a tàbbi foofu man optimisme boobu laay wax ni tey jii situation bii ñu peindre nii mën nañ ko dabu mën nañ ko changer. Hmm. parce que benn séquence la boo xamante ne daa am lu ko waraloon romb nañ ko di teg ay mesures ay réformes yoo xamante ne nag maintenant bu ñu tegee réforme yi lëndi da danga gis ni boo dawalee ba ajjuma rek dina feeñ donc tey na Sénégal yi muñal les nouvelles autorités économique te xam ni trajectoire macroéconomique ak réformes yi ñu jël. perspective yi nga xamante ni moom la FMI wax ni kat nii muy doxe ak lii wëg lii wëg lii baaxul buñ ko changé wul lii ñu daf je pense bien que autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk tey ci bopp réew mi à savoir le président de la République ak gouvernement am dinañ ci bàyyi xel taxaw ci temb ba changé loolu pour juste ñu mën a de l'espoir à cette jeunesse pour walli leen ni suba Sénégal na naataange dina am. alors crise économique bi ñu yàbbi ndax foog nga ni euh, législative yi ñu war a dem euh, fukki fa nekk juróom-ñaar ci weeru novembre Sénégal ndax pare na euh, financièrement. mais bien sûr état toujours état toujours day pare su amul tey day abbi. la fay tey dina la fay suba wala mu fay ku bokk ci yow ginnaaw suba donc état toujours a les moyens. de pouvoir faire des orientations am fu mu jëlee dugal génne pour am xaalis boobu da ngay gis ñoom dañ dana noo prévoir comme si xaalis la mu ñu teg ci benn biiru jomaay fay lii pour xëccoon pour léegi la léegi génnoon na mënatu la ñëw donc toujours état a les moyens état a les moyens pour organiser les élections législatives loolu du problème donc contrainte yooyu vraiment il faudra être vraiment un apprenti pour xalaat ni tey ji état mënul am xaalis boobu wala buñ jëlee xaalis boobu day perturber l' activité économique déedéet. alors ci wàllum reddition des comptes jamono ji njiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye fay euh, taxaw na ci lool. waaw xam nga réduction des comptes dafa am lu muy lu muy wanam ci ñi nekk di gérer actuellement mais ci ñi nga xamante ni bëgg nañoo ñëw ci réew mi wala dugal ci seen xaalis la reddition des comptes. ab benn outil la wala benn tey jii lu ñuy teg la pour nga xamante ni ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy doxal wala ñi ñu dénk ñu bañ a dugg ci corruption ñu bañ a dugg ci luubal ñu bañ a dugg ci yàq mais foog ñu am une gestion transparente in gestion avec efficacité ci finance publique yi de telle sorte que yenn détournement d'objectif yi wala détournement même dette boobu ngay wax ci yenn yu ci bari techniquement doo ko mën a justifier mais xam nga ni xaalis bari dugg na waaye gisuñu ko donc loolu tey buñ ko assainiree def de telle sorte que xeex nan tem tem corruption bi xeex bu tar képp ku ñu dénk suba dinañ la teg laaj la nga justifier xaalis bi bu leeree ñu jaajëfal la ah bu leerul ñu xool nu yoon di def ak yow yoon def liggéeyam loolu saay suñ ko jëmbalee képp ku ñu dénk rek xelam dina màcc ni action bu muy teg dana sóor ni suba kat danañ ko càmbar dafa war a rendre compte et loolu pour man ay mesures dissuasives la parce que lu ci bari suñu réew yi lu ñuy rey mooy dañuy bàyyi ba nu jël ñuy xool nuñ daboo nañu fexe ba teg ay stratégie yoo xamante ni kenn dootul mën a jël loolu moo gën a efficace et on perd moins de temps mooy la réduction des comptes. alors lan la war a def rek jamono ji ngir mën a sukkali euh, koom-koomu réew Sénégal. liñ mën a def je pense bien que moo nekk ci projet bi ñu président bi wax mooy référentiel la. économique bi muy utiliser mooy l'approche endogène mooy une diversification de l'activité économique mooy faire de telle sorte que mbay mi dox industrialisation am ñu retrouver waat suñu napp gi mais fexe ba corruption xaalisu deniers publics yi nga xamante ni moom la état di teg muy duggaat ci askan bi ñu bàyyi yàq bi assainir yu bari yi nga xamante ni pétrole ak gaz bi tey jii ñu def ci orientation ay investissement stratégique yoo xamante ni suba Sénégal bépp jeune bu fiy nekk dana nekk ci koom te loolu je pense très bien que il faut que yi comprendre ko sous peu danañ am benn Sénégalu naataange et loolu foog autorités yi invi eh, insister yi pour vendre le rêve à cette jeunesse ñu bañ a dem ci géej gi taxaw mu muñ xaar tuuti te xam ni suba naataange dina am. docteur Seydina Oumar a jërëjëf may fàttali rek ne sa xel dafa màcc lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci c'est moi.